Je euh, fi may insister sur ci question que je me woon parce que actuellement il faut poser problème dans la vallée Mais problème subvention subvention aux producteurs de paddy monsieur le président de la république monsieur Macky Sall dafa 2012 que nous ci fait des choses yu tar jëlee ci Nous jafe bi l'endettement des paysans bi ci topp problème commercialisation Mon épongé 13 milliards de dettes relancer les producteurs teg fonds de commercialisation 5 milliards ba tax tey problème commercialisation ba d'aller dal éliminer prime fixe bi nga mo ne moo tegoon jafé, yi jafe-jafe ba rizier yu ay ñu ubbiwaat usines yi commencé fonctionner yëf yi di dox normal macha allah tey 2020 bi Covid ñëwee ku ne gis ni prix yi dafa yokku président ni lan lay def dafay fexe ba maintenir prix ceeb bi ba nga xam consommateurs yi du ñu am jafe-jafe riziers yi du ñu am jafe-jafe mais producteurs yi du ñu am jafe-jafe tax que mu def subvention boobu mais subvention bu nan la nar a indi bi mu bi décision bi rek Rise ñom dañu dañu dem fay subvention boobu ñu duñu tok di xaar état bi di ñew comme président joxé na ndigal né nañu yok ceeb bi def 160 francs au lieu de 130 francs ñom dañu dem ci 160 francs euh, jënd dem ndaxte tégal nañu ay dispositif muy la banque LBA et la la BND e. mu lebal Rise ñu dem jënd ceeb bi tok di xaar pour état bi fay ñu mëna

te yaakaar naa ni bu fekkonte ni subvention bi si RIGE yi rek la dem kon ministre du commerce dina ko jël en charge parce que démb déggante naa ak le président Syrize Le wax mooy ministre du commerce bi ñu fa demee dafa wax ni dégg na am subvention bu mu jot mais subvention sur le prix du riz blanc kon loolu day concerner les importateurs monsieur le ministre ma lay ñaan tey yokkute bi nga xam ne moom la président indi souveraineté alimentaire loolu lu muy indi bu ñu ko fayulee baykat yi fu ñuy delluwaat mbappat te benn producteur ñaanul yàlla di jaay production ci mbappat lan la ñuy delloowaat mooy endettement kon mbir la boo xam ne lu ñu war a taxaw régler ko ci saa si lu jëm nag ci loi sylvopastorale bi li may wax rek mooy la vallée moo war a gën a jouer boobu ndax tey ñun la yàlla may fleuve du Sénégal nekk ci ñun yàlla may ñu le les góoróom ñu ngi ci ñun yàlla mayaat ñu le Lac de nekkaat dans le département de Dagana ak département ak région de Louga président tegaat benen programme muy Préferlo kon yaakaar naa ni programme bi programme bu am solo la bo xam ci vallée bi dinañ mëna aménager ay terrain yo xam ni yi dinañ fa mëna nek baykat yi di bay na amna na ko ko wax léegi koku dama yaakaar ni lu mu xam ci mbayum Sénégal jëf ne bo démé dans la vallée dañuy bay nord di bay nawet té programme agricole bi président Macky Sall tek mo waral lool indi des machines agricoles matériel agricole kon monsieur le ministre matériel agricole aussi ñi ngi commencé góob moissonneuse batteuse yi nga xam ñi ngi sur place nañu gaaw ñu jox ko baykat yi ñu mëna a bay parce que nak prévention yi nga xam mom le météo tek néna nawet bi day teel ñew té machine yoyu bu ñëwee dina permettre ñu mëna a à temps ba ceeb bi du mëna a ñun de baykat yi dañuy sargal président Macky Sall parce que nak en tant que jigen, tay bo démé dans la vallée jigen ñi ñu ngi concurrence teg góor ñi ci mbay mi di jënd ay matra di jënd machine matériel agricole di bay cent hectares di bay cinquante hectares comme niko ko ñi di defee té lan mo nu may lolu monsieur le président de la République dañ ko ciy gërëm